sa démb xam sa tey xam sa tey une production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ëllëg ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak yéen ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix ne leen xerew déglu xam sa démb xam sa tey ñu waxtaanee bundu ne nañ ci atum 1690 le sëriñ bi di si Sy sanc bundu nga xam ne mooy réew mu njëkk moo xam ne diine fa doon dox ci déndub nit ku ñuul. loolu nag ma ngi ko def ginnaaw bi nga xamee ne ñi nga xam ne ñu ngi doon yëngu ñu tuddee leen tub nan yi te ki jiite woon di buuru berber boobu nga xam ne ab sëriñ la woon di Nasir El Din songoon na lépp luñ tuddee goxub Sénégal ca wetu ndox ma ca 1670 booba nag ceddo yi nga xam ne seen nguur moo nekk Fuuta Fuuta gële laa wax di Fuuta Tooro moo nekk Waalo nekk Jolof nekk Kajoor booba yëngu nañ ndax diine lislaam dugg na te mi ngi song te nit ñaa ngi koy songi Malick si daawud Hamme laay waxtaanee moom mi nga xam ne moo sanc réew mi njëkk bi nga xam ne diine lislaam moom moo ko lal moo koy doxal fii ci senegam bi ca at ma nga xam ne moom lañ tuddee atum 1637 ca la juddu ca Suyuma di ndëkk su nekk ca wetu Podor ca biir Fuuta Tooro kooku nag dafa juddoo ci këru diine ñu yar ko ca alxuraan ca biir kër ga te baayam Daawuda Bokar Si rek moo ko ci fendal waaye atum 1652 ca lañ ko yóbbu mu dem Adrar ak Tagnan ca gànnaar foofa la mottaleem njàngam fa la nootee làkku arab ca fa la nootee it xam-xame arab yu jëm ci atte akum faj waaye nag firi ak seet ak listixaar fa la ko mokkale ginnaaw bi mu jàngee ba noppi nag ci la ñibbisiwaat suyuma ci atum 1657 ñetti at la ca teg rek baayam génn àdduna mu donn ko waaye bu nu fàtte ne jamono boobu jamono boobu Sénégal bi gépp métti na ndax xeex booba doole daal ku ko am rek dangay ngay song ku la neex loolu amoon Kajoor moo amoon Bawol moo amoon Siin am Saalum am Fuuta jàpp leen bu baax ne xëccoo bi nga xam ne dana amoon ci biir kër yi këru buur néeg bu ne di xëcc nañ ko daan firndeelee mooy xeex yoo xam ne deret day tuur waaye nag gàngoor yi kër yi ndono yi geño yi xëccoo bi metti na ba nga xam ne réew mépp deret la booba nag am na borom gànnaay yoo xam ne dañuy jóg rek def coggal songu dëkk ray nangu siif booba looloo am booba nag borom doole yi dañuy jóg rek def gàngoor ku ñu dajeel siif dëkk mun dugg toj loola de moo amoon waaye nag ci biir xeex boobu képp koo xam ne xeexoon nga ba nga xam ne ah, nangu nañ la nangu nañ sa sa doole nangu nañ sab dëkk dangay dem rek wut ñooy àndal boo demee ba say ngànnaay doy boo demee ba sa sa sa armée doy nga daal di jóg ñëwaat song ka ne ca dëkk ba ngir jël ko looloo amoon bundoo ngi nii nuy la juddoo ca noona nga xam ne yëngu na ca la nag Malick Sy jógee Fuuta Tooro booba nga xam ne denn yanke yi song nañ leen daal di dem nag moom ba Fuuta Jalon ba mu demee nag ki dem bu yàgg boobu ba Fuuta Jalon mu ngi ñibbisi nag ci booru atum 1667 daal di nag toog ca Gajaga fële ca penkub Sénégal booba nag siiw na lool ndax ndimbal gu muy def nit ñi ndax ndimbal gu muy def ñi nga xam ne ñooy buur yi képp koo xam ne ñëw nga ci sëriñ bii di Malick si dana la ñaanal dana la aar dana la faj nga wér Malick Sy nag ca la nangoo ne mu xadam la ba mu jógee nag ne day dem màkka nag ca la matale nag gis-gis bi nit am ci moom ci yoonu màkka woowu nag la ko feeñu ne ko war naa jiite ci yoonu màkka woowa nag la jot ndigal ne bu dellusee dafa war a toog jiite ah ca aj googa nag aj googu ca dëkk bi nga xam ne moo gën a kowe daanaka fala faloo te ñëwagut ba mu ñëwee kon lim def rek mooy mottali la ko feeñu woon Malick si dellusi si na Malick si jóge na màkk sëriñ bi si na toog na ca catu gajaga toog na te sonalut kenn mel na nag doxandeem boo xam ne li ko ñor rek mooy fexe ba nit ñi dund dund gu neex ca noona ca noona mu fekk soxna su naan kumba ndaw mu ànd ak moom te moo magoon ca ña dëkkoon foofa daa di ànd ak moom nag jubook moom waaye la Malick si njëkk a def mooy teen ba nga xam ne am na ban bu daan fàq di ca dugg ndox may yàqu moom la jël mu defar fa pind tabax ko ba ndox may ñu man koo naan waaye lam dafa ko rëy rëy ba nit ñi xam ne kii leen bëgg ñu nangu ne kii mën na leen jiite rëy ba teen ba sax ñu tuddee ko bund kumba bu ndaandu bu Malick teen bi nga xam ne Kumba ko defar waaye pind boobu maaliga ko moom loola nag ba tey moom la waa bund di fëggee seen dënn moom la lawbe yi nga xam ne ñooy géwalu ñu sant si di way ci biir yeelaa nit ñi di ñëw di dëkk ci wetam ba mujj nag mu rëy rëy rëy ba doon dëkk bu mag a mag doon mbooloo mu rëy ca noona nag la Malick si sancee bundu fële ca bët saalumu gajaga xoola bundu rekk li ko yàlla defal mi ngi ci diggante Fuuta Tooro ak goye ak kamera ma nga ca diggante Gàmbi gu mag ma nga ca diggante Bambuk ak xaso mi nga ca diggante Wuli ak Kalankadugu ma nga ca diggante Ferlo xoola bundu fi ko yàlla teg loolu moo tax nag ku jóg fa ngay jaar képp ku jëm Niger fa ngay jaar ku jëm Fuuta Jalon fa ngay jaar ku jëm Gàmbi di jaay mbaa nga jëndi fa ngay jaar suuf sa nangu njaay ma yomb te njënd ma nangu ba tax nag kenn mënut a dem fenn te jaaroo bundu loolu moo tax nag ci xarnub fukk ak juróom-ñaar ak xarnub fukk ak juróom-ñett ñu bëri jóge Fuuta Tooro dem dëkk fa nag dëkkandoo ak malenke yi ak soninke yi ak jaaxanke yi loolu mooy bundu te bundu amoonum koom bund amoon larme goo xam ne amoon na doole ba noot ñëpp waaye nag bi nga xamee ne àgg nañ ci xarnu fukk ak juróom-ñaar réew mi rëy na rëy na boo boo koy nat boo jógee bët gànnaar jëm bët Saalum di nga am lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukki kilomètre boo jógee penku jëm sow dëkk bi yaatuwaay bi àggoon na ci ñaar téeméeri kilomètres yu matul fukk kon nag réyoon na dénd bu rëy la ndax boo koy natt ci kilomètre carré mi ngi woon ci fanweeri junni ak ñett laaloon ci biir senegal laal ci biir Mali laal ci biir Mauritanie lii moo doon bundu Malick si nag daa am doole am réewam naat Malick si daa di jóg rek ne day songi yeneen réew yi ngir nangu leen ca la génn gajaga ba mu génnee nag bakkanam a ngi rotee ci ndaje moo xam ne xeex la woon te tunkaa bi nga xam ne mooy tunkaa jiite woon tiyaabu fële ca wetu dexuk Falémega fala bakkanam rotee 1699 bàmmeelam ma nga ca gumba kooka nga xam ne soriwul sax Kidira ca département Bakel loola moo tax tey jii taax yi nga xam ne danoo nangu ne àdduna bi war nañ leen bokk war nañ leen a denc muy monument historique classé moom bàmmeelam boobu mu tëdd Malick si ca la bokk liñ mën a jàpp nag mooy nguur gi ñu indi woon muy wéy ci lislaam ca bundu moom moo ubbi nguuri lislaam yépp yi amoon Fuuta Jalon ba nga xamee ne àgg nañ ci 1725 sax mu indi woon nag ndam lu mag li nga xam ne diine moom la amoon ci Fuuta Tooro ndax Tooro day ñoom ñoo fa samp woon ca atum 1776 bi Malick Sy génne àdduna nag doomam buubu Malick Sy moo ko donn bubu Malick si mooma toog na ca nguur ga almaami yi toog bundu muy xeex ku song mu génnee ba nga xamee ne nag tubaab yi ñëw nañ song leen ci xarnub fukk ak juróom-ñeent ca la dooley bundu wàññi ko kon ñu mën a jàpp ne Malick si sanc na bundu ñu mën a jàpp ne Malick si bu mu demee ginnaaw doomam jooju buubu Malick Makka buubu Malick Màkka boobu Malick Amady Gaye si ak Bokar Sade si ñii toog nañ ca Bundu jiite ko am fa way rafet. Bundu daal tubaab yaa ngi ko moom ci 1887 Bundu daal almaami yaa ngi fa jeexal ca 1905 nii nag laa leen ko manoon a nettalee nettali leen jaar-jaaru Malick Sy Daouda Hammé mi nga xam ne moo sañ ci réewum diine mi njëkk ci Sénégal bi ca lii nga xam ne moom la ñuy wax ne jege woon na atum 1637 ca Suyuma ma ne jàpp leen ne wetu podoor la ñu ne jàpp leen ne Fuuta Tooro la ñu ne jàpp leen ne Sénégal la ne lëkkale gànnaar ak gàmbi kii moo sos bundu waxtaanam du jeex waaye wayam rafet na Malick si Daouda Hamme xam sa démb xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut mai ànd ci ak Archives national du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Institut